meilleure santé comme ni koy defee àllarba bu nekk bu 17 jotee jàpp 18h ci seen rajo Afia FM 93 point 0 euh, émission meilleure santé nag comme ni ngeen ko xamee. ñu ci ànd ak district nord mi ëmb poste de santé bi di Nabil Choucair tey jii nag ñuy waxtaanee euh, rôlu ICP yi ci xeex bi ñu nekk euh, jëmale ko ci jàngoro ji di coronavirus ci loolee nag ñu ciy dalal. Boubacar Diop di technicien supérieur de santé doon it chef de poste bu Norat Parcelles Assainies unité 7 mbokk auditeurs yi laata ñoo gën a xuus rek ci waxtaan gi dañ koy jox kàddu gi mu daal di nuyoo ko mbokku auditeurs yi monsieur Diop nuyu nañ la. ah jërëjëf soxna si ah, di la nuyu bu baax ah, di lu jotaay bi aussi. Mhm. di rafetlu invitation bi ngeen ma invité ma mën a waxtaan ci at kii bi at ah, mbooloo mi nit ñi déglu ñëpp. man la Boubacar Diop euh, nekk euh, technicien supérieur chef de post bu euh, Parcelles Assainies unité 20 muy noraat ci Parcelles Assainies unité 20 ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci sa teewaay fii ci rajo Afia FM comme ni ma ko waxee rek euh, ñuy dalal ki nga xamante ni moo di euh, Boubacar Diop di ICP bu euh, NORAD monsieur Diop ñu la doon laaj lan mooy rôle bi nga xamante ni ICP yi ñu ngi koy def ci xeex bi nga xamante ni ñu ngi ko sumbaloo ñeel wàllum coronavirus. waaw jërëjëf soxna si ICP yi je pense que. ñoom ñoo gën a jegeñ population bi. Mhm. parce que poste de santé bi mooy fi nga xam ne à part case de santé moo gën a jegeñ population comme Dakar amul pratiquement case de mhm. santé. donc poste santé yi ñoo gën a jegeñ population bi surtout si Parcelles Assainies donc ki nga xam ne moo fa nekk yor fa wàllu wér-gu-yaram di représenté médecin chef bi di représenté équipe cadre bi. di représenté district bi di représenté ministère de la santé di représenté état bi kooku kenn mënu ko tëb donc rôle am dafay important day important parce que maladie en général balaa ñuy dem fenn si ñoom la jaar. ñu def dispatching bi. donc te en général maladie nekk nañoo ñoom ñoom ba nga xam ne test ko ñoom lu ñu leen wax maladie lu ñu leen wax. ñu gëm ko. donc kooku vraiment bu fekkee mi ngi joué rôle am rek. lu bëri mun naa dem ko mhm. am na solo bu baax a baax euh, ngay chef de poste Norat Parcelles Assainies unité set ñu gis ne nag Parcelles Assainies jàngoro ji di Covid 19 sonal na leen lool. Mm. ndax bés bu nekk daanaka ñu dégg ne parcelle am na ñaari kaa communautaire wala benn kaa communautaire lan moo marché wul si wàllum sensibilisation donte sax maire bi jugoon na jël ay matukaay yoo xamante ni def na ko mais ba tey euh, cas yi ñu ngi foofu di gën a bëri ca Parcelles Assainies. Ah, dëgg la parce que ki maire bi di Moussa Sy vraiment jógu ci bopp ba léegi bés bu nekk. nekk mi ngi ci moom defe naa loolu la def Covid la def euh, plateforme léegi loolu lay liggéey. Mm-hmm. loo wax la ne mu ne noonu lu ñu ma wax te waxuñu ma Covid waxuñu ma dara parce que tant que jógul parcelle en tant que édile de la ville. tant que euh, feebar bi jógu fii ci parcelle la. du am jàmm quoi. Mm-hmm. donc il est à l'origine de tout. donc régulièrement dañu am benn comité de veille comité de veille bi ICP yëpp ci lañ bokk. Mm-hmm. ci lañ bokk donc on se regroupe pratiquement tous les mardis et tous les vendredis on chef de poste bu nekk étaler ses problèmes ànd ak population yi nga xam ne ñu nekk ci comité de veille bi chef de quartier ak ñëpp ci bi ñu wax suñuy problème ñu jëm ko saafara et régulièrement euh, matériel bi nga xam ne moom la ñuy soxla aussi bu ñu ko laajee mu génne ko daal di koy joxe mooy masque yeeg yooyu nga xam ne soxla nañ ko mm-hmm. gel yeeg yooyu yëpp lu ñu si soxla en tout laaj lan ngeen soxla mm-hmm. le lendemain mu daal ñuy déposer mm-hmm. boo xam ne moo ëpp population pratiquement Euh, moo ëpp population ci Sénégal. vraiment donc dëkk boobu bu fekkee dox la affaire bi dox na foofu baax na def nañu ba nga xam ne feebar bi jógee na fi mun nañu ne Dakar yëf yi dina baax bu dakaar baaxee Sénégal baax te xam nga ne dakaar léegi vraiment mooy euh, fi nga xam ne fii la feebar bi ëppee donc par cela daf ciy jouer benn rôle mais euh, dafa am jamono boo xam ne. Mhm. nit ñi ñu ngi doon moytu bu baax a baax a baax ñu ngi doon moytu bu baax a baax ñu dem ba yàgg bien yaa ngi yokk. ñu ne nañ déconfiné bàyyi lépp léegi nit ñi defee ne seen xel xam nga nit xel rek lay demee ñu yaakaar na ñoom vraiment yëfi jeex na yëfi jeex nañ ko léegi dañ ko dem ba dañ ko oyofal. Mm-hmm. daanaka gis ni ci nekk ci mbedd mi di football mais léegi tous les jours ñu ngi football ñu ngi ci mbedd mi di football di def ay kii yoo xam ne vraiment ragalatuñu daal masque yi aussi il faut romb ni ne ko takkal masque pour mu takk masque. ce qui fait que dans les structures booy dugg ñun dañ laa naan takkal sa masque raxasal sa loxo ainsi de suite mhm. ce qui veut dire que bu fekkee ne nit ñi delluwaat nañ ci nañ defoon cosaan li ma doon wax nit ñi ne leen bu fekkoon tey xëy nañu Sénégal ñëpp takk mask di d'ici une se d'ici quinze jours mën nañ ne Covid bi jeex fi mhm. te ñëpp a ko ragal mais nit ñi defuñu lu ñu koy di dàqee te nit ñi ñoo ko mën a xeex amul kenn koo mën a xeex loo xam ne amul garab amul dara nit ñi mun a moytu pour mu dem mhm. voilà donc ci parcelle si ñi ngi def lu ñu mën ñu ngi léegi nit ñi quand léegi actuellement dañuy préparer euh, di ñaari fan yi ñu ngi def benn formation ak sunuy relais Sevaki euh, ñi nga xam ne ay leader lañu ci gox yi. Mhm. defal nañ leen formation démb ak tey chef de poste yëpp ngeen toog ak ñoom euh, ñu ngi waxtaan ak ñoom pour wax leen nu ñuy def léegi dañu dañuy def genre combat final mi ngi mel ni ci arène bi day am ay combat préliminaire ay combat ba combat final la dernier combat combat bu mag bi. Mhm. moom lañu ñu bëgg a def fi mu nekk nii ci Parcelles Assainies jóg nañ pour defe ko ci CEVAC yi lañ koy jaarale quoi mooy les hommes leaders ñi nga xam ne ay leaders lañ si ñoom la jaar léegi nag dañuy dugg ci kër yi fi mu nekk dañuy préparer pour dugg ci kër yi di def euh, VAD euh, visite à domicile waxtaan ak nit ñi wax leen lan mooy problème bi kër gu nekk bu fekkee ku nekk aar nga sa bopp aar ki nga dendal aar sa kër ñu ne feebar bi jeex na donc ci loolu la ñuy préparer ni ñu koy def nii ci lañ jëm nii Mhm. am na solo waaye euh, maire bi comme ni ñu ko waxee sànq rek am na matukaay yoo xamante ni jël na ko mais est-ce nañ impliqué ñi nga xamante ni ñoo di acteurs communautaires yi mu di bàjjenu gox yi ak relais communautaires yi oui communauté de veille bi dès le de veille boobu kenn waxagul dañ ne feebar bi am na mu woote mu woo ñëpp xool ñen ñooy les euh, principaux concernés yi nga xam ne les leaders bàjjenu gox yi mooy comité de veille bi ñuy def mhm. on se tous les mardis sur le site il y a un responsable santé bu ñuy wax monsieur Ndiaye moom mooy gérer affaire bi donc plus le médecin chef des Parcelles Assainies tous les ICP plus médecin chef Parcelles Assainies les chefs de quartier les bajenu gox les responsables de marché les euh, nu les responsables des jeunes ak ay groupements yi fa nekk yëpp on se regroupe tous les mardis et mercredis. Mm-hmm. pour évaluer situation parcelle. xool qu'est-ce qu'il faut on le fait avec le maire. donc comme il demande tout ce qu'il le koy joxe joxe ko. am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seen émission meilleure santé ñu ci ànd ak euh, district nord Nabil Choucair tey nag ñuy waxtaanee rôle ñi nga xamante ni ñoo di chef de poste yi nekk ci gox yeeg goxaat yi ñu ciy dalal Boubacar Diop di euh, chef de poste norate parcelle Assainies unité 7 wax nga ko sànq. relâchement am na bu baax a baax depuis bi nga xamante ni njiitum réew mi Macky Sall daal di nay assouplir li nga xamante ni moo di mesures yi euh, est-ce que laajul situation bi fii mu toll cas yi di gën a bëri décès yi di gën a bëri est-ce que laajul ñu delluwaat ci mesures yi nga xamante ni moom lañ njëkkoon a jël. no je ne pense pas ce serait pas aussi responsable pour ñu delluwaat ci kii bi actuellement ne ku nekk yaay confiné sa bopp. man mhm. je pense que individuellement ni ñu dem ñu continuer même chose ko def muy gën a garaaw di def muy gën a garaaw a quelque chose qui manque am na luy. luy grincer loolu la ñu war a génne lan la mooy jox nit ki ku nekk gëddam mu daal di xool moom man lay def pour mu dañ man sama bopp lan laay def pour mu dañ actuellement tous les matins da ngay dégg bu ñu nee bu ñu joxee résultat ñu ne eh gox bii am na wala fii am na wala tel am na mais xalaatoo ne man est-ce que mënul ñëw ci man mais na laay def bu du ñëw ci man na laay def bu du dem ci bi ma dendeel te actuellement nit ñi li ñuy li ñuy li ñuy réere mbir mooy ñoom eh, li leen intéressé mooy cas communautaire. Mm-hmm. or que bu ñu nee bu ñu nee cas par exemple am na Parcelles Assainies benn mm-hmm. cas communautaire. d'accord or que am na vingt cas yoo xam ne kenn tudd leen te ña nga fa mooy les cas contacts. te am na fa. Mm-hmm. c'est toujours comme ça. donc xëy na bu ñu doon wax yooyu cas sax xëy na nit ñi dinañ gën a ragal pourtant boo leen ko joxee dañuy tiit parce que bu ñuy wax cas communautaire am na yoo xam ne gox yoo xam ne xamuñ ñaata cas moo mais bu ñu joxee cas yi par exemple am na benn moment am benn unité ci Parcelles Assainies par exemple. Mhm. ñu nekk cas communauté ay benn ak ñaar yooyu ñu ñëw daal di tudd unité ba wax fa 17 personnes. 17 mhm. ci benn unité. te bi ñu ci benn unité ci la woon. d'accord mais ko yëgee coow lii tout le monde nous lii nu mu mun a amee te waxuñu ne voilà tuuti ay 20 cas am ainsi de suite mais nit ñi conscient yu si problème boobu mais li ñuy xool cas communautaire rek. cas communautaire rek or que cas bi communautaire mooy ki xam ne dal na ko te xamul euh, fan la ko jëlee. Mm-hmm. mais y en a plus de cas yu am mais kenn du ko wax. voilà je pense que ça mooy problème bi il faut que ñu sensibiliser davantage ñu xam ne cas yi bëri na bëri na lool. Mm-hmm. mais il faut xeex. d' accord yan difficulté ngeen di faral di rencontrer ci biir liggéey bi. biir liggéey bi nag moom temps yi moom saf na sàpp quoi parce que <laughs> quand xam nga dispensaires yi euh, état bi daanaka. li mu ñuy dimbale ci personnel yi muy fay salaire la mais tout ce qui est matériel médicament et au tout autre pro euh, matériel mm-hmm. euh, ci recette u dispensaire bi lay jógee mais recette yi mi ngi jógee ci euh, nit ñi bu ñu ñëw di fay ticket d'accord mais actuellement bu kenn ñëwatul recette ticket du am recette amul dara amul te dañuy vivoter on a besoin de ce matériel là on a besoin de ces médicaments là pour continuer def yeneen ki parce que y a d'autres y yoo xam ne ki dañ day nit ñi dañoo ragal a ñëw quoi parce que au départ dañu wax ne ku am yenn feebar yi par exemple booy sëqat am yenn température c' est pas la peine nga ñun ñoo ko doon wax quand même. ñu ñu doon wax ne bu c' est nga ñëw wooteel téléphone. nit ñi en général boo wootee bu ñu la corona la ñëpp ragal la woote nit ñi wooteetuñu ñëwatuñu dispensaire dañuy toog seen kër. Mhm. musiba mu di mu di baisse xamante ni ñoo ngi koy nemmeeku ci poste de santé yu bari. Mhm. waaw moom la parce que nit ñi nangu ñor ñëw quoi bu ñu ñëwee se disent que peut-être ma tase ko am corona. parce que malade dañuy daje rek ndox daje la. Mhm. peut-être moo daje parce que boo demee hôpital lañ lay wax boo demee hôpital bu ñu lay seetal da nga am corona or que kenn la ñuy seet fenn ne ko am na nit ñi defee ne ay fukk ñooy am. Mhm. donc ils se disent dans la tête su ma demee rek mën a am naa corona. Mhm. baisse de consultation générale boobu yan conséquences la leen mën a jural. conséquences yu bëri parce que tey bu yë bu bu ko korona jeexee. feebar yenn yi daal di jolli. comme ni ñu koy gisee temps yi. jabet mhm. yeeg ni gis temps yi boo leen seetlu bëri y' a beaucoup de décès ci mbedd yeneen fee yeneen feebar. Mhm. yu am ay kara kaaw kaawu jabet yu ñu naan dañuy décédé ay ay AVC bëri na temps yi ngeen koy dégg. Mhm. mais nit ñi parce que ñu ngootuñ ñëw dispensaire. au dernier moment la ñuy ñëw. mara day taale bu ñu ñëwee fekk na c'est trop tard. Euh, comme ni nga ko waxee léegi rek am na ñoo xamante ni ragal nan bu baax a baax psychose bi mi ngi fi ragal nan bu baax a baax dem hôpital ndax am na ñoo xamante ni sax ñu ngi ñu ngi ñu ngi véhiculer ay fausses euh, rumeurs comme quoi. boo demee hôpital dañ lay dañ lay confiner pendant 14 jours. Hmm. ba pare mettre la en quarantaine moo tax ñu bari fu mu toll nii euh, dañuy daw bu baax a baax lii nga xamante ni moo di l'hôpital yi mais pour dindi fi fausse rumeur yooyu est-ce que jotul ci itam ngeen impliqué ñi nga xamante ni ñoo di bàjjenu gox yi relais communautaire bi en ce sens. mooy mooy li ma la wax population xamal na leen loolu ay fausse rumeur la. mooy li ma la wax léegi. mooy hmm. li euh, combat final bi may wax. parce que actuellement dañuy fas yéene bu ne on a recruté des jeunes. des leaders ay chefs de quartier bàjjenu gox yi def leen par groupe ñu dugg ci unité unité bu nekk ñu dugg koñ par koñ et mieux kër par kër joxe la bon information on va faire ça et chaque semaine ñu def évaluation xool ñaata nit la ñu gis seen réaction nu ñu réagiré ndax ils sont pour quels sont leurs problèmes ba nga xam ne ñëwatuñu ñëwatuñu dispensaire quels sont leurs problèmes par rapport à la Covid tout ça léegi dugg ci biir kër yi moo koy def moo ñu dese. parce que wax nañ ci mbedd mi wax nañ ci rajo wax nañ partout mais bu ñëwee ba sa kër macha allah wax la di nga ñu wax bu ñu waxee ñu xam lan mooy sa problème yow xëy na bu ñu si jógee yëf yi dina changé bu baax am nañ ci yaakaar. Mhm. te ci la ñuy évaluer suñu tour de part euh, nu fréquentation poste yi xool ndax nit ñaa ngi ñëwaat yëpp d'ici peu on verra tout ça peut-être te comme ni ma koy waxee yaakaar naa bu ñu jógee ci xeex bi ñuy jëm nii feebar jóg fi feebar Covid bi jóg fi. ñu euh, nga xamante ni moo di. Euh, rôle ICP yi ñëw ci leneen mu di wàllum paludisme bi ak Covid 19 bi. Mhm. jamono yi maanaam mois bi nga xamante ni si leen nekk mooy mois de juin. Mhm. ñu jëm mois de juillet août mu doon mois yoo xamante ni dafay coïncider ak li nga xamante ni moo di nawet bi mu doonoon mois yoo xamante ni nag saa si lañ daan dégg li nga xamante ni moo di sensibilisation jëm ci wàllum paludisme am ci yenn ci médecins yi wax ne bu nu moyul sibiru bi ren dina rey nit yu bari ndax déjà wax nga ko léegi am na ñoo xamante ni. bu seen yaram tàngee sax dañuy ragal a dem hôpital parce que dañuy ragal ñu diagnostiqué leen li nga xamante ni moo di coronavirus. Mhm. naka ngeen di def ak loolu noonu est-ce que di ngeen wéyal sensibilisation bi comme ni ngeen ko daan defee ci jàngoro ji di paludisme. effectivement parce que ñun wàllu kër docteur ñaari rôle la ñu am pratiquement benn bi mooy sensibilisation ba feebar du la laal deuxième bi bu feebar ñëwee nag ñu faj ko loolu mooy suñu rôle quoi. léegi nag sensibilisation moo ëpp doole moo ëpp doole parce que bu ñu fexoon ba kenn feebarul dañuy gën a libre n'est-ce pas. Mhm. dañuy gën a libre gën a mën a continuer di wax. léegi sensibilisation du si jóg parce que toujours am na ñoo xam ne ñu ngi ay acteurs yoo xam ne ñu ngi leen jël pour loolu. léegi il faut ñu continuer sensibilisation parce que euh, macha allah depuis quelque temps quand même bi ñu commencé avènement milda yi moustiquaire imprégné yi mhm. taux de paludisme dafa wàcc bu baax a baax a baax a baax macha allah te je pense que c'est le moment quand même nit ñi gën ko continuer pour mhm. feebar. nit ñi ngi koy continuer bu baax a baax ñu ngi bu ñuy utiliser euh, moustiquaire yi si mun nañu kii ñu ah, d'ailleurs dans les structures dañuy toog rarement léegi la ñuy toog gis kaaw palu parce que boo di boo feebar yaram tàngee boo ñëwee dispensaire bu yaram tàngee jëm 37 cinq jëm kaw de température en général dañuy defal TDR mooy test de diagnostic rapide pour xool ndax euh, am nga siburu wala déet bu fekkee ak ngay siburu dañu lay jox garabu siburu bi gratuitement donc test yi dañoo gratuit Euh, garab yi ñu la jox dañuy gratuit donc foo côté boobu moom vraiment amoon nañ ci ay avancées yu baax a baax a baax léegi sax bu amee benn kaaw si buru sax day mel lu bees la suñu quoi day daf ñuy bett quoi dañ ko dañ ko vraiment maîtriser dañ ko de telle sorte que vraiment ñu ngi ci góorgóorlu bu baax a baax léegi nag comme ni nga waxee nag bu fekkee dem nañ ba corona bi ñëw ku yaramam tàng da ngay xalaat naan siburu la wala déet siburu la wala déet moo tax lu mm-hmm. ma ne siburu la wala déet dans tous les cas demal fañ koy seete mooy ci dispensaire bi quoi boo demee ñu wax la lan la. Mhm. bu si sibbiru la dañ la defal euh, test palu bi. bu dee leneen la ñu defal yeneen test yi bu dee corona par exemple am na fu ñu lay defee test bi xool tout ce qu'il pour yow ñu defal la ko pour bañ nga am euh, conséquence fâcheuse quoi. Mhm. am na solo bu baax a baax euh, waaye monsieur Diop. Mhm. am na leneen loo xamante ni askan wi ñu ngi koy wax mu di ne ñi nga xamante ni nee nañ am na ci yenn poste de santé yi. buñ fa demee euh, accueil bi demeewul noonu parce que dañ leen di daw comme kuy daw lu ma xamul duñ leen nangoo laal duñ leen nangoo jël température duñ leen nangoo jël dara muy loo xamante ni ay information yoo xamante ni ñu ngi koy dégg ay rumeur plutôt yoo hmm. xamante ni ñu ngi koy dégg ci ci askan wi est-ce que loolu lu am la. rumeur yi moom accès na si ñun waaye man dama xamoon ban gox la am je pense tamit bu ñu def rumeur quand même dañu war a wane tel lieu la moom suñu biir moom bu ñu yëgee ne dara parce que ñun entre ICP. dañu am suñu benn amical on se parle tous les jours ku am problème da koy wax et on se donne des conseils on s'encourage bi ñuy dem ba léegi mi dañuy wootante suñu biir du waxante ndax am nga problème bi ainsi de suite et tous les mois on se regroupe en réunion de coordination am nañu réunion aussi amical et on parle de nos te en général rumeur moom moo gën a gaaw yegg fi nga xalaatul mais euh, ñun vraiment euh, ñun ñooy woote ñëw leen ñu xam que nit ñi ñëw parce que nee wàcc na on fait tout pour nit ñi ñëw donc kuy fexee nit ki ñëw du fexee di dàqee. Mhm. donc on fait tout léegi laal li ñu lay wax mooy boo ñëwee dinañ la wax say loxo je pense kenn war a koo bañ parce que raxasal looy say loxo boobu li ñaari objectif la mooy dañ lay fàttali ne war nga di raxas say loxo deux yaa ngi dugg ci euh, kër docteur da nga war raxas say loxo loo fi indi woon nga bàyyi ko fa nga ko jële mais du dugg ci dispensaire bi pour aar ñi nga xam ne ñu ngi si dispensaire bi boo yeggee ci biir aussi ñu expliqué la loolu lépp buñ la ko expliqué bu fekkee soxla na alcool gel ñu wax la ko. boo takkul masque aussi ñu ne takkal masque xam nga loolu moytuwuñu la mais dañ lay wan ne lii nga war a def. d'accord moytuwuñu la de mais dañ lay expliquer ne lii nga war a def. donc boo si ñëwee te am na ñoo xam ne tey dañuy ñëw nga la soluñu masque nga leen may yéen da takk solo masque nga dama ko fàtte wala laa mais dañ lay jox masque ñun dañ lay may masque ne la door nga dugg parce que duñ la dàq parce que tey bu dàqee mala tey bu la leen jotee yaa responsable. mais da koy may masque ne ko dugal beneen yoon mu xam ne kat ah ndekete ñi ils sont sérieux ci li ñuy def. Mhm. dàquñu la mais dañ lay wan yoon wi. d'accord dañ la accepté dugal la ci biir defal la ko mais mhm. dàquñu kenn sax ñoo dàq kenn parce que ah, euh, bu dàqee nit. Mhm. un malade on sait jamais mun na génn leneen dal ko. Ah, boobaa je pense que assez responsable non non monsieur comme comme comme dàq mais dañ lay moytu comme luy daw peste maanaam du ñu nangu la du ñu nangu am yow ak contact alors que war nañ jël sa température. mais nee nañ am na ñoo xamante ni dañ naan la lu lay metti nga ni lii léegi ñu bindal ordonnance nga dem. waaw non non non parce que nit ñi quand même euh, ci biir euh, kii bi am nañu ay thermoflash pour jël température jaratul dugal ci kii bi quoi. d'accord am na thermoflash du jaar mooy laal nit ki quoi parce que dañuy éviter quand même maximum possible quand même. yi mm-hmm, mm-hmm. laal ay nit quoi dañ koy parce que même même boo ko dugalee ci nit température thermomètre yooyu électronique thermoflash boobu ñu lay def nii loolu dawul du la pour jël température noonu la ñu koy jëlee quoi. noonu la ñu koy jël dawuñu la et puis nañ la jëlal ter euh, sa tension nañu jël que ñun bu ñu jël on est masqué. Mm-hmm. donc on craint rien. Mm-hmm. on est masqué taw jëlal la sa tension affaire yooyu bu fekkee jar na ak leneen ak leneen dañ la koy defal. donc mm-hmm. on le fait on le fait on on n'ose même pas seetal noonu fla fla bu ñu la ko defalee aussi tu n'es satisfait quand tu n'es satisfait tu vas plus revenir te dañ koy éviter dañu di ñëw dañuy jege ñu leen di wax. on a besoin de ça. par rapport ak ñu dellu si waat tuuti ñi nga xamante ni ñu ngi daw hôpitaux yi bu baax a baax. Mm-hmm. poste de santé yi centre de santé yi ñu ngi daw bu baax a baax bu amee lu leen metti automatiquement xalaatuñu dem fii nga xamante ni moo di poste de santé wala centre de santé li ñuy xalaat mooy dem pharmacie wut fa garab. Ah, ah. mais est jotul yéen tamit. ngeen ngeen euh, am kaddu yoo xamante ni euh, di ngeen ko séqanteeg ñi nga xamante ni ñoo di pharmacien yi ba ki nga xamante ni dafa ñëw pour jënd garab indiwul ordonnance ñu bañ ko jaay. bon je pense que pharmaciens yi ñoo ko gën a xam parce que très souvent quand même malade di nga gis ku dem pharmacie ñu dellu si mhm. y a des médicaments ñu gën a xam li may wax. am na médicaments yoo xam ne ay tableau la quoi ci médicaments yi am na yoo xam ne mënuñu la ko jaay te amoo ordonnance. Mhm. am na yoo xam ne mën nañ ko jaay te euh, du jar ordonnance quoi c'est des médicaments vraiment yoo xam ne amul danger mm-hmm. danger bu tax ñuy wax quoi amul médicament bu amul conseil effet secondaire mais amul danger bu tax ñuy wax boobu mën nañ la ko jaay sans problème mais très souvent parce que comme ni nga wax ni mën nga ragal dem dispensaire dem jënd ko mais boo tanewul da dellu si waat dispensaire boo dal tanewul boo demaatee pharmacie ne ñoom en médicament yooyu ñu pharmacien di la ko jaay mën nañ la ko jaay c'est pas grave parce c'est pas interdit mais bu ñu ko jaay très souvent la naan jël ko mais nga dem dispensaire et très souvent beaucoup de mes dañu ñëw ne ma telle pharmacie moom mën naa ñëw coow puis on collabore très bien voilà pense que amuñu problème yooyu quoi parce que on s'entend parce que dañuy waxtaan pharmacien yi on se connaît très parce que dañuy appuyer bu baax a baax a baax mhm. Euh, amuñu jumtukaay yi nga xamante ni moo leen di protéger ci jàngoro ji di Covid 19. maanaam ay jumtukaay yoo xamante nii comme gel masque yi et cetera thermoflash yéen est-ce que amoo leen problème bu mel noonu. bon tout à fait au début comme c'est partout au Sénégal feebar bi bett na moom nañ wax bett nañu on avait rien on avait rien y i rien amul woon masque amul dara d'ailleurs jamono yooyu dañu wax ne bu nit ñi sa population dañ la doon wax ñun bu leen takk masque. parce que amuñu woon Sénégal amul woon masque yoo xam ne doy na pour jox ko nit ñi. bon loolu lañ doon véhiculer quoi. Mhm. bi ñu ma nga xam ne lii masque moo ñu ci génne. bon léegi on est obligé masque yi ñëw na en en grande quantité wax naa la fële sunu gox bi euh, sunu maire bi Moussa Sy daf ñuy jox lu bari bari comme yeneen maire grand yeeg yooyu. joxe nañ ba joxe EPI euh, jox nañ yëpp EPI mooy équipement de protection individuelle yi nga xam ne moom ngay soxla bu en oh a mi ngi ne mi ngi si biir poste wuñu ko parce que am nañ ko am lépp. am nañ alcool gel am nañ lépp. te même masque yi ñuy utiliser nii boo jëlee le matin ay 3 heures temps petit change de masque ah y'en a à gogo dañ koy sol comme il le faut euh, gan am nañ ko ñi ko war a soloon koy sol pour def ay soins ak yooyu masque yi am na alcool gel y'en a à gogo y'en a plein que d'ailleurs man li ma yor sama ki nga xam parce que sama dépositaire laa ko dénk. mais dama ko ne bu kenn ñëw sama personnel laaj la benn alcool gel nga am ko di ko am loo ko donc koy jox donc ce qui fait dañ koy joxe yàpp pas de problème ku ñëw ñu jox la on en a à gogo ku ñëw ci personne bi encore da koy jël parce que maire maire bi jox nañu lu bëri district bi jox nañu lu bëri ministère jox nañu lu bëri moom vraiment loolu doo loolu moo manqué actuellement. Mhm. léegi on en a quand euh, monsieur Diop ñu gis ne fan yi décès yi ñu ngi gën di bëri mm. tey rek am na ay décès. Euh, mu toll lim bi di gën di di di jéggi dayoo saa su nekk. Hmm. ci sa gis-gis lan moo waral dese yu bari yooyu. li ko li ko waral c'est très simple xam nga nit ñi nañ la ne moytu leen mais moytu leen xam te xam nga ne feebar bi en général yenn âge la gën a euh, yàpp. Mm-hmm. wala nga am yenn feebar euh, comorbidité yeneen feebar yoo xam ne da nga koy weyaale. Mm-hmm. parce que dafa lay néew mais feebar yooyu dañ lay néewal doole bu virus bi ñëwee da lay gën a néewal doole dafa day wàññi say défense gën la néewal doole. Mm-hmm. léegi mag ñooñu ndeysaan ñoom ñi ngi moytu ñi ngi làqatu ñi ngi mel ni ñu nekk ci ay prison mais jeunes yi ñooy dem di ñëw di leen liggéey te jeunes yi conscientuñu ci ne ñoom ñooy indi feebar bi mag yi ñoom ñi ngi làqatu ko gisutoo mag ñi ñi ngi làqatu comme ay prisonniers làqatu tëju seen kër yi mais xale yi ñooy dem di ñëw léegi ñooñu nag bu leen dalee vraiment seen euh, défense day wàññeeku xam nga dèjà comme am nañu fee yenn feebar dèjà seen kattan ni muy ñuy war a xeexee yenn feebar yi dafa wàcc léegi bu feebar bi ñëwee tamit da koy gën a wàcc waat gën a proliférer ci infection bi mu ngi mel ni ku am diabète par exemple en ah, diabète diabétique tey bu amee plaie de plaie ba day gën a gaaw quoi day gën a garaaw n'est-ce pas yu demee noonu cardiopathie yeeg aussi seen day néew doole parce que cœur mooy pompé te bu demee ba cœur bi néew doole pour mm-hmm. problème la mm-hmm. yooyu mooy xam te en général dañ pour jéem leen gérer parce que bu ñu nee réanimation doomul doonul ne ku dem réanimation ñu dëpp la masque non parce que yenn ay fonction rénale mooy am problème yenn yenee fonction poumon yeeg yooyu lu ci war lañ lay def mais nag ku dooleem wàññeeku du ne toujours la traitement qu'il faut nga mun a am quoi. Mhm. donc boo seetloo moo tax ku bu la dalee nga am comorbidité vraiment yaakaar yi dañuy faj. di am yaakaar ba yàlla def di gën quoi. Mhm. ñu bari nag ci sénégalais yi dañu xalaat ne rek cas grave égal décès. est-ce que am na ci ñi nga xamante ni ñoo nekk cas grave nekk réanimation est-ce que am nga am na ñu ciy rëcc fii ci réewum Sénégal ñi rëcc ñoo ëpp est-ce yi nga xamante ni moom lañ a yor. Mhm. Euh, pour jàppale leen est-ce am na fi. réellement oui na fi parce que bu fi amuloo parce que xamul tax ñuy faj quoi parce que vraiment faj bi tax ñuy wax bi tax ñuy wax dëgg mooy cas yooyu yeneen cas yi dañuy bañ mu gën a yokk du wàll ñeneen yi mais faj bi tax ñuy wax dëggantaan parce que quand même grippe la euh, kii comme genre grippe laay wax infection bi comme virus la laay wax la. Euh, Covid bi grippe virus la virus amul médicament donc da ngay jël lu koy euh, euh, lu koy néewal doole wala nit ki am kàttan pour néewal ko doole wala système am baax pour mu néewal doole virus bi mu jóge fi ñeneen ñi nag virus bi dafa ñëw yokk seen feebar. d'accord feebar boobu moo leen di yóbbu. Mhm. virus bi la yokk seen feebar feebar bee leen yóbbu ko donc bu fekkee nag gën na bëri quand même c'est parce que quand même feebar yooyu moo leen di yóbbu ko léegi nag li ci des mooy il faut ñu xam ne xëy na bu ñu doon wax ñaata ñoo wér.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 Euh, monsieur Diop euh, mu mel ni euh, bi bi feebar bi tàmbalee fii ci réewum Sénégal ñi nga xamante ni ñoom nañuy def quarantaine dañ leen daan yóbbu ci hôtel yi wala ci loppito yi feebar bi toll foo xamante nii tey oppito yi buñ fa yóbboo ñi nga xamante ni présenté wuñu benn symptôme day doon loo xamante ni dafay doy waar parce que feebar baa ngi gën di ëpp doole fii ci réewum Sénégal mu mel ni léegi si dañu décider ñi ñuy def quarantaine ñu bàyyi leen si kër yi mais ñoo ñu noonu ñu bàyyi ci kër yi amul benn surveillance ba pare ñenn ci ñoom euh, dañuy génn dem doxe seen soxla yenn saa yi avec masque yenn saa yi sans masque di risque la pour ñu contaminer ñeneen ci mbedd mi est-ce que loolu tamit doonul loo xamante ni day gën a li nga xamante ni moo di virus bi. effectivement loolu ci li koy gën a propager la ko parce que ki nga xam ne am na ko déjà très souvent ñi nga xam ne am na ko ñu leen wax contact yooyu très souvent lu ci bëri amuñu feebar. mais ñoom dañuy wàlle wàllekat lañu dañuy yor seen bagage daal di ko jox nit ñi. d'accord dañuy yor daal seen virus di ko jóor di ko jox nit ñi loolu rek la ñoom loolu la def donc bu ñu conscient wee ci loolu dinañ téyel virus bi si ñoom toog ba wér parce que en général 14 jours 14 jours du ko weesu ñu muñ ko mais très souvent comme ñun ni ñuy def bu fekkee am na ay cas contact yooyu tous les matins dañ lay woo laaj la parce que yaa ngi sa thermomètre laaj la température bi ñu ñu noté laaj la ndax dara méttiwu la lu lay métteeku ñu noté su fekkee am na dara lu ci niroog feebar bi laa dañuy changer parce que quand même pour faj la quoi mais ki nga xam ne jëlul médicament jëlul dara mun na toog këram. s'il est mm. conscient que ne dans les quatorze jours là dina ci génn. te du wàll kenn. su mm-hmm. fekkee ne bëggul wàll kenn dans sa mm-hmm. tête. Mm-hmm. te il est conscient ne moom bu toogee du wàll kenn. day toog. d'accord mais très souvent dinaan ah garaawul man feebaruma lañ lay wax. parce que ci woo la ma man dara jotuma ma ne que man très souvent li ma leen wax mooy waxuñu da nga feebar mais doomu jàngoro moo nekk ci yow. te bu ñu leen doomu jàngoro moo nekk ci yow. on sait jamais mun na yokk te yow yaa ngi wàll euh, aaroo sa waa kër aaroo sa dëkkandoo mhm. aaroo say mbokk yi aaro mag ñi donc il faut qu'on être conscient de ça bon très souvent dinañu répliquer wax ñu ne ah désormais xaw ma ko woon noonu te fekk da nga wax wax wax di waxati Uh-huh. am na solo bu baax a baax monsieur Diop yaa ngi koy wax sànq Sénégal uh, quand même nombre de guéris yi ñi nga xamante ni ñoom mu ci wër péng si feebar bi. Mm. Uh, doon na lim boo xamante ni bari na lool macha allah ñuy ñaan yàlla rek mu gën a yokku. Mm. waaye ñi nga xamante ni ñoo amoon coronavirus ba wër. est-ce que ñoom wër nañ définitivement wala mën nañ attraper waat lii nga xamante ni moo di virus bi. parce que lii euh, comme da euh, euh, corona lu ñu naan feebaru corona. am na fi ay set ay corona yooyu. virus bi am na façon yu kii. mais bu bu bii moom dafa doy waar. Covid 19 bi moom dafa doy waar loo xam ne kenn xamu ko nit ñi préparé wuñu ko xamuñu ko donc lu bees la ñuy gis bés bu wax ne en général ay virus ak yooyu ku ci wér très souvent bañ a dalati wala balaa mu lay dalati yàgg parce que sa yaram ay défense yoo xam ne day mun a xeex virus te virus yomb naa xeex bu fekkee am nga ay défense yu wóor. Mhm. donc daan ñu daan gis yooyu mais bii gis nañ ci ay quelques yooyu gisoon nañ ci benn. ci géejuwaay je pense boo xam ne dafa dellu si waat donc ñuy wane ne kon mun na possible mun na possible parce que nit ki tamit li leen jaaxal mooy soit feebar moo dellu si waat wala beneen da amaat beneen corona quoi parce que xëy na moytu woo tu te dis que tu es guéri def lu la neex. Mm-hmm. xëy na mu dellu si donc ce qui veut dire que ku ko am ba pare na nga gën a moytu. donc on sait jamais. on sait jamais na nga gën a moytu. boo seetee ne Sénégal ñu bëri wér nañu. Mm-hmm. gisuñu ñu bëri ñoo xam nañ leen quoi. vraiment loolu lu ñu constaté la mais quand même na. te mun na am donc moytu rek. mu la dalee ba nga génn ci nga gën a moytu. Euh, monsieur Diop mu mel ni euh, ñu nekk waa district nord seen émission passée ñu ngi ko doon wax euh, ci yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi koy rencontré ak ñi nga xamante ni ñoo di malaat yi yenn saay il paraît ñoom jànkonteel nañ même situation bi yenn saay da ngay dem jëli malaat bi mu doon mag ñi nga xamante ni ñooy ay doomam taxaw na la du fi jóge doo fi jëlee sini mala sini sini sini papa wala doo fi jëlee sini yaay di ko yóbbu est-ce que yéen yéen a ngi jànkoonte même euh, même bien sûr bien sûr parce que pas plus tard que hier euh, am na benn contact boo xam ne non avant-hier la di ba léegi ba léegi avant-hier ba léegi da nga koy wër di ko téléphone doo ko jot te mi nga doon wax ak yow mu tëj téléphone am xam nga kooku bëggul ngisu te ñun am nañ numéro yëpp facilement da ngay dem localiser ko dem woo ko xam nga du ko neex woo nañ la téléphone nga bañ nga tëj sa portable tëj ko complètement nga woote woote fanaanee woote bala landay matin woote woote woote mënoo ko jot da ngay dem ba këram c'est pas difficile parce que on a tous les numéros de parcelle boobu chance la ñu am kër yëpp am nañu dañuy dem ba këram toog wax ak yow nga door a nangu quoi ne ah dama xamul woon quoi mais pourquoi nga tëj sa portable dama xamul woon dama bañ dama ne damay bañ mboo dëkkandoo yëg ne dama feebar ak yooyu quoi ma ne dëkkandoo yi mais ay nit lañu comme yow feebar jombul kenn jombul kenn léegi la problème mooy léegi ki nga xam ne dafay bañ ñu jël ay waajuram dem parce que dañuy dégg dese yi am ci mag ñi. Mm-hmm. yaakaar nañ ko dem dee mm-hmm. quoi ah te ñooñu bañu ñu faj seen waajur mais aussi ñu ngi calculer ne bu ñu génnee ñu ne kër gële. kër gële keroog stigmatisation bi. oui stigmatisation bi am. Mm-hmm. keroog benn xale ndey ndeysaan dafa génn di fubal. la veille la ñu détecté yaay ji comme plus. d'accord la le ci terrain de football bi ah xale yi ne ko doo fubal parce que yaay dafa am corona. léegi ko ñu woo man ma dem ba sur place. waxtaan ak responsable de quartier beeg ñooñu quoi laaj ma waxtaan ak ñoom ñu conscient quoi plus ou moins nangu ne xale bi war na mën nekk si ñoom tout ça ay du ñu mag mais quand même daal di nangu quoi donc nit ñi bañ ñu ku leen faj mais li ñuy ragal stigmatisation ñu ne kër gële dañoo am corona lool rek la ñu ragal tey gis bu kenn amee ku siiw nit ku siiw bu amee corona ñépp koy waxtaanee mel ni daf la jomb yow mi koy wax mel ni dalaa jomb ko or que na ñëw si n'importe qui. Mm-hmm. kër gële am na corona mais xalaatal na yow mun na ñëw ci yow. yow kay da war a wax naka laay def bu du ñëw ci man te du ñëw sama dëkkandoo yi. du ñëw kenn mm-hmm. ma dëkkal. Mm-hmm. loolu rek nit ñi dañuy ragal stigmatisation bi kese moo tax bañu ñu leen faj nag loolu kese la. waaye yaa ngi koy wax sànq ci wàllum xale yi est am na xale yoo xam ni bu ñuy bu ñuy euh, bu ñuy xayma ñan ñoo euh, tranche euh, âge bi lan ñan ñoo gën feebar bi ñan na gën di sonal. comme ni ma la wax mag jël gën mais xale yi bëriwul si ñoom ñu feeñ. d'accord waxuñu ne amul feebaru parce que xale yi en bu fekkee ne kër gi kenn amul euh, ku am corona bu amee ku am euh, corona dañuy testé waa kër gi. d'accord ñi nga xam ne malade bi nekkoon na ki am corona bi positif woon nekk naa ñoom euh, ci 14 jours yi jiitu. dañ mhm. leen di testé ñoom ñëpp quoi. Mhm. bon xool ñenn ñoo ci am ak ñoo amul quoi mais tranche d'âge bi ñu gën a kii mooy mag ñi. mag ñi mag ñi mag ñi. Mhm. jeunes yi am na si ñoom mais du leen def feebar lu bëri li ñuy gis bokk li ñu gis. du am benn symptôme seen yaram am benn symptôme dañuy dox seen dëkk sa mooy ñi nga dox nekk si mbedd mi di taxawaal nekk seen yoon nekk seen yoon nekku ci. pour mhm. ñoom feebaruñu boo waxee dañ naan feebaruma carrément man dara jotuma man ne foofu laa lay répliqué ne la waxuñu da nga feebar doomu jàngoro moo nekk ci yow. Mhm. mais après nga wax consciemment mais en général parce que mag ñi li tax ñuy gën a bëri ci nit ñi di leen remarquer ne dañoo gën a bëri parce que dafa leen def feebar d'accord ñu defee ne ñooñu rek a feebar or que ñi ko am seen yaram bëri na mënoo ne kii amu ko mënoo ne kii at kii amu ko mënoo ne kenn amu ko on sait jamais test rek moo lay mën ne kii am na ko wala kii amu ko. Euh, par rapport ak sensibilisation bi est-ce que impliqué impliqué ngeen ñi nga xamante ni ñoo di jeunesse bi. d'ailleurs ñi jël sax pour ñu sensibiliser pratiquement ay jeunes lañu. pratiquement ay jeunes lañu quoi pour parce que ñoom boo seen morom buñ toog wax ak ñoom dinañ leen gëm quoi. te vraiment bi ñuy toogee di que yu bëri def lañ ko réeraloon quoi day tu sens que ni ñii dañoo xamul woon quoi da ne c'est évident da ngay ne li ngay wax nii yëpp c'est évident di sensibiliser di wax da ngay sën naan ah nit ñi comprendre nañu or que majorité bi comprendre ñu dara dara dara dañuy jaxase rek parce que li ñu gën a xam xam lu ñu gën a xam li nekk ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. loolu lañ gën a gëm. d'accord loolu lañ gën a gëm loolu rek lañ lay nettali mais liy dëgg dëggantaan duñ la ko xamuñu ko yow nag da ngay wax nag comme ñuy wax ci rajo Afia di wax faneen ak faneen nga yaakaar ñëpp dégg nañ la or que ndekete contraire bi la ñu comprendre ñoom moo tax ñu bàyyi ci wax te moo tax ñuy euh, ci yenn émission bi am solo ngi waru leen ci jóg toujours di wax ba feebar noonu lañ koy xeexee ba mu wax rek waaw monsieur Diop li nga wax euh, dañ koy euh, dëggal ndax euh, jeunes yi fi mu toll nii ñu bari ci jeunes yi sax laay wax dugal nañ seen loxo bu baax a baax ci xeex bi la preuve ñu ngi wàcc ci terrain bi di ñaax ñi nga xamante ni ñoo di askan wi nekk ay volontaire nekk ci terrain bi di def liggéey bu am solo dañuy àndandoo déglu benn ndaw boo xamante ni moom volontaire la mi ngi wàcc ci mbedd mi di def liggéey bu am solo sensibilisation ak ay moroomam dañuy àndandoo rek daal di koy teewlu. ministère de la santé et de la prévention. médical dafa recruter lu ñuy wax cinq cent jeunes yoo xamante ni dañuy daw dem ci plage plage yi la ñuy njëkk muy yoof di Ngor di Almadi di Cambérène di di Malika fii may wax ak yéen ma mbaaw seen i casquettes yi si yëpp dem nañu depuis seize heures noo ngi commencé dugg sur le terrain lu tax ñu soxla loolu président de la République dafa demander à ce que la pandémie la ñu fexe ba mu jóge ci réew mi ministère la santé nag ànd ak Abdoulaye Diouf Sall ak i médecin di rayante matin midi soir pour loolu ay milliers et des milliers de morts ngeen di digg ci àdduna bi ay milliers et des milliers de morts quatre cent cinquante mille morts dans le monde entier ñun Sénégal di résister te soo xoolee ñi nga xamante ni noo dee malade giri génn ñibbi kër noo ëpp ñi actuellement ñi nga xam ne ñoo nekk en instance donc ay efforts yu remarquable la yoo xam ni ministère bi def na ko li ma bëgg mooy nu àndandoo def bloc derrière ces autorités jàpp ànd bokk ndey ak bàyyi ndax réew mi ñun ay patriotes la ñu war a doon c'est pourquoi j'ai demandé à ces ñu yor ay hydroalcool yor ay masque sol ay gan dugg ci nit ñi même la jànnee dugg ci nit ñi yow waxal li nga xam ni moom nga war a wax suñ ko defee yaakaar naa ni ak ñaanu xalif généraux yi wóor na yàlla am nañu yaakaar ni maladie bi dina fi jógee yéen journalistes aussi yaa ngeen di jouer un rôle très important parce que lu mel nii yéen ñëpp ngi ñëw pour lancer message boobu du ma def loolu di leen gërëm di leen sant di leen wax ni leen maladie bi day jommal na réew mi jàmm jommal na Sénégal dee leen seen loxo dee leen tisit yi ñu sor gis ngeen ko toutes les mesures barrières yi ñuy wax mi ngi fii ñu teg donc lii rek message la maa ngi leen di gërëm di leen sant ñaan yàlla mbes mi yàlla na fi gaaw a jóge di gërëm le ministère de la santé ak tous ses services ci support bi nga xam ne de communication apporté loon ko pour nu mën a wax nit ñi pour mën a éradiquer la pandémie du Covid 19 je vous remercie. waaw mi ngi noonu mu doon loo xamante ni am na solo bu baax a baax ñu ngi xamal askan wi ne feebar bi mi ngi ci biir réew mi euh, ñu war a rek daal di gën farlu itam wax na ko itam nombre de guéris yi nga xamante ni am na solo bu baax a baax yaakaar naa ni dinaa ci docteur Diop waaye laata loolu rek docteur Diop. Euh, yaa ngi koy wax sànq euh, Moussa Sy di maax bu Parcelles Assainies mu ngi dugal loxoom plutôt bu baax a baax ci xeex mi ñeel coronavirus mais dafa am dogal boo xamante ni. maire bu Grand Yoff jël na ko mu di ki nga xam koo xamante ni da dañ ko dañ ko fekk wala muy dox si mbedd mi solul masque ñu daal di ñu daal di koy jàpp yóbbu ko commissariat ba pare mu mu fay euh, ab ndàmpaay est-ce que loolu euh, du solution ngir ñu gën a mën a dakkal li nga xamante ni moo di coronavirus bi bu boo leen ko defee foofu lay ca Parcelles Assainies ndax initiative bu rafet la. loolu mooy meilleure solution mais en li ki gën a mën a ki mën jàpp ci mbedd mi kan la police la. police la peut-être accompagné par les maires quoi mais euh, suñu agent de police doyu bu doon mais actuellement parcelle lañ ko doon def bu policier bu auto police garé na rek ñëpp daw jëli masque pour war ne lu bëri nit ñee ko tey parce que police parce que bu ñu la jàppee da ngay te loolu la war a kon continuer te même oto yi parfois dañu war a circuler rek yow déggee sirène police rek ñëpp daw jëli seen masque parce que ñu bëri dañuy yor ay masque takk seen sikkim takk ñu ko ci kii bi ko defaay sikkim dama mhm. koy teg ci kaw bakkan bi mhm. suufu sikkim bi mhm. mooy takk masque te ku gis police ñëw actuellement nga takk masque. kon nit lu bëri nii ñoo ko tey quoi donc je pense quand même nit ki ñaari façon yar ñoo am di la wax ngay dégg di def déggoo di def ñu jël caw caw bi lan la mooy rek da laaj la wecc te Sénégal nag bu doon 1000 kese la laaj ñëpp wuti masque te koy xeex mais bu doon 1000 kese la laaj sàqatuma nag ay 3000 ak 5000 la ñuy laaj mais je pense que police da ci war a a baax peut-être dina a baax dañu war ko police ñëw jàpp ci wàcc ci ci gox yeeg goxaat yi wàcc ci gox yi carrément. Mhm. circuler ci kii ñu ne telle heure dafa police dina ñëw police dina ñëw gis nga moo gënoon sa confinement guddi bi police a ngi circuler sirène baa ngi réer masque borom masque yi. Mhm. parce que léegi bi may ñëw dama dugg taxi quoi. Mhm, euh, ma yor ta parce que ah sama taximaan moo ma ne mbaa sol nga masque gars yi dañuy ramasse de yaa ngi ne grand ko jëm dañuy ramasse de ma ne ko voilà. loolu rek baax na. dañu war a ramas nit ñi quand jël leen ñu fay ci tàng tàng ku fay la ñu yóbbu la commissariat léegi mu jóge fi. Mm-hmm. si initiative bu baax lay encouragé maire Grand Yoff aussi waaw. Mm-hmm. am na solo bu baax a baax euh, ñuy fàttali ne yéen a ngi seen émission meilleure santé ñu ci ànd ak euh, district nord ak poste de santé Nabil Choucair mu mel ni itam am na ñoo xamante ni danoo yaakaar ne rek bu sa bu solee masque bi bu ñuy wax ak nit. dañu war a simmi masque bi wax ba pare doo ko solaat masque bi mu mel ni itam sensibilisation bi ci terrain bi loolu itam war nañ ci sensibiliser bu baax a baax nit ñi hmm. parce que da koy gis tout le temps nii da nga koy gis tout temps nit ki bu bëggee wax day tekki masque wax ba pare doo ko takkaat masque bi alors xamuñu ne masque yi itam mën nañ ko takk tout hmm. en par là hmm. surtout boo nekkee ci ci ci ci ci ci foo xamante ni nit ñi daf ñu dafa bëri comme marché wala yu ni parce que nit ñi euh, ça nous arrive même dans nos services nit ki day jógee këram takk maskam dugg ci dispensaire bu takk masque am dugg ba ci bureau bi nga ne ko noo tudd mu wàcce masque bi commencé di wax pour te dire que ñi ils pensent que quand bu takkee masque kenn du ko dégg effectivement mais ñu ñàkk ko dégg dinañ ko mhm. laajaat loo wax mhm. man boo takkee boo wàccee masque man daal takkaatam daal la expliquer lan la quoi li ngay wax comme ni nga la quoi mhm. parce que masque bi actuellement bu ñëpp comme ni ma la wax ne bu ñëpp takkoon masque léegi feebar bi jóge fi takk masque comme ni ñu ko war a takkee léegi feebar bi jóge fi dëkk yu bëri yi ko dindi mooy euh, takk masque bi le reste ñi xam nañ ko raxasoo beeg yoon ñi dañuy raxasu bu baax de mais takk masque bi moo des. d'accord bëri takk masque bi quoi mooy jaaykat yëpp yooyu ñu kii dañuy dindi war ak mais il faut ñu takk masque bi masque bi c'est le minimum ñu takk masque bi te booy waxee ak nit ki bàyyi masque bi noonu ñu ngi lay dégg parce que boo waxee dara ñi dañ lay laajaat loo wax nga defoon dégguñu la nga wàcc. pour wax <laughs> nañ ko ne takk nañ takk rek yow takkal boo takkee nga ne ah. man dinaa aar képp ku ma dendal keneen takk masque aar ma man mi nga xam ne maa dendal moom plus de distanciation sociale un bi raxas loxo yi bañ a dajaloo yi comme ni ko defoon boobu léegi je pense que léegi feebar bi jóge fi mhm. mu mel ni itam raxasu bi daa mel ni ñu bari tegee nañ ko de côté commencement bi doon seetlu woon ne nit ñaa ngi raxasu bu baax a baax am na bërëb wala gox goxaat yoo xamante ni ak bërëb yoo xamante ni boo fa musaan dem da ngay fekk ñu teg saabu teg ndox mais loolu yëpp amatul waaw nit ñi léegi dañoo xaw a ñime feebar bi loolu laa ko mën ah, ko ñime dañ ko ñime mais quand même feebar boo xam ne yow ki ngay xeexal gisoo ko feebar bi yaa ngi benn combat la boo xam ne yaa ngi xeex moom gisoo ko ku xam ne yaa ngi ko gis te mën na la jékki-jékki daaneel la léegi nga war ko moytu moytu ko ni nga koy moytu wax nañ la ko les barrières les gestes barrières distance sociale masque bi raxas loxo yi raxas loxo yi effectivement wàññi nañ ko bu baax a baax parce que nit ñi yaakaar nañ bu ñu takkee masque wartuñu raxas mais dañ yëpp la ñuy boole quoi parce que tey fi ngay teg sa loxo ci biir oto beeg mbedd meeg fi ngay teg sa loxo rek mën nga jël doomu mhm. jàngoro bi mhm. Mhm. te comme da ngay wàll nit ñi koo koo jël doomu jàngoro bi sa loxo nuyu ko jox ko nuyoo nuyoo sa bàyyi nañ ko mais kooku foo teg sa loxo faneen ku fa teg loxoom jël doomu jàngoro bi yow mii sa loxo bi nga jël ko euh, moment bi ngay tekki masque bi nga laal sa kanam wala kii nga teg fa doomu jàngoro bi dugal ko sa bopp yow te fekk yaa ngi sol sa masque sa bopp ah. donc il faut ñu ko ne raxas loxo def nañu daan def yor seen butéelu gel yu ndaw yooyu ci biir saake mhm. c'est important am na jamono boo xam ne Moussa Cissé da ko doon distribuer ci parcelle mhm. di ko jox nit ñi yaa plein nit ñi di ko joxe nit ñi di ko dugal seen biir saak yi am na ñoo xam ne ñu koy def ba mhm. Mhm. comme ni nga ko waxee rek c'est important nañuy doxantoo yi nga xamante ni moo di gel yi si biir sac yi boo laalee foo xamante ni wóolu woo ko nga def si gel sa loxo da ba noppi nekk ci kaaraange mën a mën a aar sa bopp aar ñeneen ñi mhm. euh, comme ni nga ko waxee rek tout au début mu mel ni Parcelles Assainies euh, bu ñuy xool ci district nord bi bokk na ci ñi nga xam gox bi nga xamante ni moo gën a moo ëpp kaa kaa moo ëpp kaa léegi euh, qu'est-ce qu'il faut pour limiter propa propagation boobule. ci Parcelles Assainies waaw benn affaire bu paradoxal moo am ci Parcelles Assainies da ngay dégg cas yu bëree bëri bëri bëri fekk ci benn kër la ñu am wala ñaari kër. d'accord moo tax dina bëri lool mais dafa ci biir kër yi mais la problème mooy loolu ñooñu bu leen bàyyee bu ñu génnee tasaare ko quoi. Mm-hmm. donc cas yi li ñu bëree bëri tasaaroowuñu am na zone yoo xam ne amuñu dara am na jamono boo xam ne unité yëpp amoon nañu. mais am na unité yoo xam ne amatul dara te unité yi am en ay ci benn kër lay am. wala ñaari kër. mais ni pour wane nit ñi ngi def effort yu bëri mais effort boobu ñuy def ba amul seen zone dégguñu ko rek pour ñoom defe nañu dañu war a baisser les bras mooy danger bi donc fii dañu war a continuer ñi mu dal ci kër yi xam nañ daanaka kër yan la mais ñooñ ñu ngi aaru seen bopp bu ñooñu ko ne ñu aar leen ñi si des aar seen bopp léegi mu jóge fa. li muy bëri bëri bëri tasaaroowul dafa nekk ci ay unité boo xam par exemple am na jamono xam dafa nekk ci benn unité nee daal mu am 17 cas ñëpp di woo coow 17 cas yi or que ci benn kër la woon. beneen unité am 23 cas ñëpp naan 23 cas yi nekk telle unité mais juste boobu ma jot ci cours de parce que dañ doon kii téléphone gars yi yëpp yor ko seen téléphone résultat yi xamuñu woon ne sax yëfi tasaaroo noonu 23 cas ci benn unité. te ñoom dañ doon nekk rek unité boobu da amul dara. fekk ci benn kër la mooy kër yi ni ñuy dëkkee quoi ay ñeenti étage juróomi étage. am locataire yu xaw a sakkan mu tasaaroo ci biir kër gi noonu la demee ci biir parcelle mais tasaaroowul. loolu la demee quoi. Mhm. ñu bari ñu ngi naan euh, ay spécialiste ñu ngi xamle ne feebar bi euh, dina fi jóge euh, au mois de septembre est-ce que yaakaar nga loolu est gëm nga loolu. cest à que mun na ak fi toll nii ci cas yi ni muy gën di bare nii. waaw mun na fay jógee bu ñëpp defee geste barrière bu ñëpp defandoo. mais ñiy def ñiy bàyyi moom ah day continuer rek parce que li koy lawal mi ngi fi mu ñun nit ñi koy lawal ñoo fi ne nit ñi ñoo koy lawal ñi koy lawal a ngi fi. te ñi koy nit ñi fi ne ñi ci majorité bi de respecté wuñu best euh, barrières yi au complet peut-être mbedd mi parce que mënuñu ko ñàkk takk parce que ñu ngi xalaat police ramasse leen mm-hmm. ah wala nga nit ñi di la moytu te nga obligé nga takk ñi ngi def yeneen ak yeneen di jigéen jigéen bi moytuwuñu dendee bi actuellement boo gisee kaar yi boo gisee ñu dugg ci kaar da ngay tiit yow sa bopp da ngay tiit keroog damay romb benn oto kaar yi mais nit ñi dawee di jëkkante amul moytu. Mhm. dawandoo ñoom ñëpp te ñi nga ñi daw daw ñëpp kenn takk ci mos. parce que ku nekk yaa ngi bañ sa masque wadd ñëpp dañoo dawandoo dugg noonu quoi euh, dama ne woon man dama xëy na ma war a filmer wan ko quoi xëy na pour wan ko nit ñi quoi mais nit ñi da waaru mais loolu chauffeur boo xam ne def nga loolu waroon nañu mun a police ñëw dal sa kaw. amaan la lu bare bare ba wàcce client yi nga xam ne ëpp nañu ba pare amaan la xëy na loolu jógee na tax ñu jëlee <laughs> ak ak feebar bi fu mu toll ci réew mi nombre de décès yi gis nañ ko saa suñu xëyee muy gën a yokku mm-hmm. euh, mu mel ni itam am na ñoo xamante ni ñu ngi jàpp ba tey ne feebar bi amul léegi la gën a am tey tey boo seetee Sénégal ñi ngi toll ci six mille cent vingt neuf cas mm-hmm. ci six mille cent vingt neuf cas yi quatre mille euh, soixante douze wér nañu mm-hmm. quand même ñu ngi kii donc mu doon pourcentage de guérison de soixante six virgule quarante trois pour cent am nañ ko pour ce qui veut dire que ñii faj macha allah ñi ngi def li seen warugar. seen am na ay décès nag. un mm-hmm. pour un virgule soixante et un pour cent cinquante un virgule cinquante un pour cent de décès am na. Mm-hmm. am na quand même mooy am na ñoo xam ne vraiment ñàkk nañ seen bakkan parce que am na 93 décès décès ci tey jii. Mm-hmm. mais aussi des na ay mille cent 1163 yoo xam ne ñu ngi fii euh, tëdd ci lalu hôpitaux yi lalu hôpitaux yi. ñenn ñi ngi ci ci kër yi tamit des na ay décès ay ñoo xam ne ñu ngi positif ba léegi daal ñii ñu ngi ci lalu hôpital. lii ñu ngi ci kër yi ñu ngi ci ñu confiné leen quoi mu doon 32 pour cent yoo xam ne quand même dese nañ doomu jàngoro bi donc yi tendance baa ngi baax li ma naan combat final moo fi des dem ba gisatuñu benn cas bu fekkee ñëpp jógoonoo ñu léegi mu jeex. Mhm. léegi mu jeex. mais li ci doy waar mooy bu ne 93 décès quand même. Mhm. c'est c'est bëri na bëri na bëri na lool. bëri euh, na lool 93 décès macha allah bëri na mais boo seetee. Euh, quatre mille soixante douze guéris ñoo am gis nga différence bi. d'accord waaw donc ñu wër. comme ni ma mhm. la wax ñu wër ñoo ëpp. ñu nekk ci l'hôpital yi. te ñooñu ñëpp positif woon nañu. Mhm. donc gars yaa ngi def seen warugar bu baax waa wàllu kër docteur ñu def seen warugar bu baax a baax ci six mille cent vingt neuf cas ci tey jii ñu ngi toll ci quatre mille soixante douze guéris. Mhm. guéris kat moo tax mu guéri mooy ñi leen di jël seen en charge ki mooy waa kër wàllu kër docteur. donc euh, pourcentage guérison bi di un virgule di euh, soixante soixante six virgule quarante et un pour cent. Mhm. Euh, donc am na un virgule quand même mhm. un pour cent de. am na solo bu baax a baax ñu leen di encouragé bu baax a baax ci mhm. liggéey bi di rafetlu seen liggéey nag ñu ngi def liggéey bu am solo mu di waa kër docteur boobu ba léegi ñu ngi jàpp taw bàyyi ñu leen di encouragé bu baax a baax di leen félicité bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni ñoo ngi koy def euh, ci jàngoro ji nga xamante ni mooy coronavirus euh, docteur li ñu li ñu na euh, ci waxtu jeex na dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo. waaw di rafetlu vraiment jotaay bi comme ni ma la waxoon ñun wàllu Kër Docteur ñaari fànn la benn bi aar benn bi bu ñëwee ñu faj. Mhm. bi nga xam ne aar bi nag mooy wax ji sensibilisation bi. Mhm. te sensibilisation lii moo ñu ko mën a may lu mel nii toog wax ak nit ñi. Mhm. à grande échelle. parce que seen rajo bi quand macha allah am na écoute wax ak léegi taxi bi ma jëloon di ñëw. day ñëw ba fii mu ne maa ngi lay déglu. d'accord nag léegi maa ngi lay déglu donc ñu ngi leen di bu baax a baax a baax. Mm-hmm. vraiment ngeen góorgóorlu góorgóorlu ci lii ñu leen ci kii. ñun en tout cas foo leen ñu wooyee nañ ñëw je pense bi bii mooy sama troisième ou quatrième émission bu ma defee ak yéen parce que yàgg naa def ak émission vraiment di rafetlu lii kontaan vraiment ci sant di gërëm parce que def naa lu rëy rëy pour man tey. Mm-hmm. réussir naa lu bëri rëy rëy tey. <laughs> tey euh, génn naa wax nit ñi te ñi ma waxal bëri na ci micro à travers votre micro. vraiment merci beaucoup. ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñu doon dalal Boubacar Diop di technicien supérieur de euh, de santé di it chef de poste bu NORAD parcelle Assainies unité set ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu teewoon fii. ngir gën a ñaax ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ñu moytandiku bu baax a baax li nga xamante ni moo di euh, Covid 19 di jàngoro yooyu coronavirus mbokk auditeurs yi ñu leen di ñaax itam ngeen di gën a respecté li xamante ni moo di geste barrière yi di raxas seen i loxo ba mu set di sol masque yi euh, ngir rek ngeen mën a aar seen bopp aar ñi nga xamante ni ñoo di njaboot gi yëpp aar ñi nga xamante ni ñoo di troisième age bi nga xamante ni boobaak léegi ñoom rek ñoo si loru te it dañ leen soxla bu baax a baax ci réewum Sénégal ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di leen jox diggee euh, digg euh, di leen joxe di leen jox rendez-vous plutôt euh, beneen mercredi bu 17h jotee jàpp 18h fii ci seen rajo Afia FM 93.